yàlla daanaka wàññik njëg yi la muy am ci diir bu yàgg bëriwul la ci atum 2012 ginnaaw nguurug Abdoulaye Wade régime bu président Macky Sall amaloon na wàññik njëgu yenn ci denrées alimentaires yi loole amoon daanaka benn weer képp ginnaaw bañ jëlee nguur gi gouvernement ba woon daal di ciblé woon ñetti denrées ceeb suukar ak diwlin kilo ceeb ordinaire jóge woon ci 325 francs dem ba 280 francs mu di woon wàññu 45 francs di juróom-ñeenti dërëm ceebu parfumé jóge woon ci 475 francs wàcc ba 435 francs di woon wàññi ko dërëm njëgu kilo suukar jóge woon ci 690 francs wàcc ba 580 francs di woon wàññuk 110 francs dawlin moom jóge woon ci 1200 francs wàcc ba 960 francs di woon wàññik 240 francs di ñeent ak juróom-ñett waaye diggante 2012 ba 2024 daanaka njëg yi daal dina bëri lum soppeeku ba ci weeru juin bu atum 2024 kilo ceeb mu ngi doon jar 450 francs kilo suukar di jar 650 francs litre dëwlin di jar 1200 francs kilo mburu di jar 175 francs waaye ñaari weer ginnaaw bañ jël jo jomaay fekk ay ñooñam amal wàññik ñeent ci denrées alimentaires yi di ceeb suukar diwlin ak mburu kilo ceeb ñu wàññ ci juróom-ñetti dërëm kilo mburu ñu wàññ ci ñetti dërëm litre dëwlin 100 francs ak kilo suukar juróomi dërëm mu di wàññi boo xam ne ci gis-gisu ñenn ñi bëriwul waaye di jëmal conjoncture bi fi mu toll ci jamono ji ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ci boroomi xam-xam.